yi nga xam ne moom ma euh, Ndao daal dina koy yokk ci euh, nee interview bi nga xam ne leen na ko ak euh, suñu confrère l'observateur de ce matin baal ma man maa la fi waxoon bi nga dëggee palais da ngaa changé waaye baal ma ndeke <laughs> ndeke yow ndeke yow sonn ko trop ayca ñu xooli beneen yëglekaay l'observateur journaliste yi nag dama yaakaar ne ñoom dañ doon essayé xool Barça wala Barça gi nu muy demee xam naa moo taxoon ñu bëgg a dem vivre expérience bi mhm. mais finalement man nag après foog ngeen xoolal ma journaliste yooyu ñan la <laughs> pour ñu mën a xam vraiment Ah, liste bi foog ñu xool ñi ci bokkal ñu ah, ah, ñoom Jibi Sarr yëpp naa nekk ñoom Jibi Sarr bokkoon nañ ci <laughs> ay ñoom faat Ndaw yëpp mën naa nekk eh, ana kii eh, comment elle s'appelle eh, Oumou Khayri naa nekk de journaliste yi foog ñu lijjanti yenn journaliste de Abdoulaye Mbow sa njaboot gi doo xool ñu yenn journaliste ndax amoo ci njaboot ah waaw am am na ñu si xam am na ñoo si xam ah mm. ah tu am na ñu si xam am na ñu ma ok euh, journaliste comme caméraman comme caméraman mm. ok mm. mais ñoom yaraax fii lañ kii woon. Val d'Or côté Val d'Or ah côté Val door la. Hmm. ah d'accord. c'est te géej gu géej gi ni mu géej géeju Val d'Or gu sedd gi. mais excursion lañ doon def rek heureusement ba kenn amee ci gaañu gaañu xëy na nag bon. Euh, plus de peur ah. bi ñu koy waxee rek xawoon nañu tiit ndax nag euh, am na ñenn ci ñoom foogoon nañ ni du ñu doon dellu si waat ak seen bakkan. waaw sant yàlla. ndox rek yàlla baax na sax fekk ñu sol ay gilet. waaw waaw heureusement heureusement. ñu gaal gi tamit sorewul woon. waaw so non fii kay sorewul. Mhm. sorewul woon boo euh, gisee ay yaraaf wàll laa ne fu mu fu mu fu mu fu mu këppoo sorewul parce que boobu ñu ngi doon waaj départ ah. donc. d'accord ñi nekk ñu nekkoon si géej gi doon sangu te mën fee daanaka. ñoo dem ñoo leen kii mais. aucun article ne vaut la te gaal gi ndaw na ndaw koo xam ne. ba pare dañ ko surchargé. waaw mm-hmm. te nag euh, suñu ay confrères lañu. Mm-hmm. Euh, ay techniciens lañu si mm-hmm. wàllu audiovisuel. yenn conditions yi moom journaliste bi ñu si teg. caméraman bi ñu si teg. preneur de son bu ñu si teg. chauffeur bi ñu si teg. lankal condition bu ñu la tegul dans les condition normales mm-hmm. yi nga war a mën a defee sa liggéey bul nangu ñu lay yeb ni pañe salade te image moom boo ko gisee daa xam ne gaal googu quarante nit ak ñi nga xam ne ñoo ko war a dawal mm-hmm. euh, daanaka xajuñ ca ñu dugal leen ci loo xam ne daanga naka gis nga ba ñoo toog poids wu poids wu nit ñi moo dëpp gaal gi nga gis ñëpp tu ñëpp tuuru si ndox bi dañu ni on ne sait jamais euh, bu fekkoon gën naa sori mmh. malgré les gilets lu nekk mën na see xaw waaw malgré les gilets waaw que peur xam nga xam nga souvent c'est la peur qui voilà qui fait ravage dans dans mi ah euh, nit ñi ñu bëri tiit mooy tax ndox ndox ray leen sax. daal moom bu tiitee waaw. te seen seen ñenn seen seen appareil yàqu na. am ñoo xam ne appareil yi ñu yoroon yàqu na. bu dee bu dee ay téléphones yoo xam ne ce ne sont pas des téléphones insubmersibles maanaam yoo xam ne mën na dugg si biir ndox te dara ko si fekk. téléphone ngoogu ñàkk nga ko. boo yoroon caméra boo xam ne amaana mënut a dugg si ndox. caméra googu tamit amaana yàqu na. ah appareil photo bu doon yor nga ko bu dee appareil photo mënut a dugg si ndox appareil photo boobu yàqu na waaye nag lépp solo mooy bakkan bakkan yi bakkan yi ñu sauvé sauvé c'est important waaw parce que tamit euh, daal journaliste daal mhm. ñun nañu am fulak fayda mhm. même buñ naan lay yóbbu Thiès mhm. woto buñ lay dugal na nekk woto goo xam ne woto gu baax la woto goo xam ne wóor na la lii day dem ak jàmm ñëw ak jàmm parce que ña lay yóbbu ils sont dans les meilleures conditions ña lay yóbbu gis nga seen woto yi ay glacière moo si ne xam nga glacière. maa la moo si ne. bu ñu ubbee glacière yooyu pom banana raisin lépp nga ca sandwich boisson jus ba pare ñu boole si yore seen ay vitamines yoo xam bu ñu ko màccee. Mhm. mën ñoo mën nañoo seen deux jours. yow nag ñu wóor loola. Mhm. doo lekk doo naan. Mhm. doo def dara. Euh, voilà tu tu ñu bëgg nga travailler dans des conditions exécrables surtout nag campagne bu jotee. waaw campagne gi ñu moom tu travailles dans des conditions exécrables. Mhm. nga gis ñu yegg benn bërëb. journaliste ñu parqué leen néeg goo xam ne lal mat laa ay matt ak ay ay unk ak lépp a cay ne. je ñoom ñu ngi si c'est ñoom ñu nekk si seen i kër yi bopp. yoo xam ne climatisé tout tout parce que ñoom jàpp nañu ni taskatu xibaar bi. Mhm. Euh, ab kasara la goo xam ne. Mhm. fu ñu ko fu foo ko foo ko sànni baax na. te loolu nag je pense que ñu ñoo war a am fulla ak fayda goo xam ne yenn dañ koy daal di bañ merci pour ce cri de cœur Abdoulaye Mbow c'est important euh, condition yu am solo yi nga xamante ne suñu mbokk naataangoo journalistes yi wala ñeen mm. kii ñuy ñuy ñuy liggéey waaw ah, c'est important waaye da tukki ñu dugg la ci yow daaw bi ñuy dem Gambie oto bi ñu yéegoon ñibbisi naa weer sama sama bopp naan wii waaye ren moom maa ngi xaar ba ngeen indi fi oto boobu rek reen moom bu ma Gambie avion bu amul du ma dem dégg naa yéen a ngi waaj guddi a ak Gambie waaye billet d'avion rek bala dew ma daaw oto bi di yéego mhm. heureusement bi daa baax xam nga baax rek am solo nag ndeysaan ah, mais chauffeur dafa baax moo tax waaj mun ma ko woon wax dara mhm. mais yàlla xam doy ñu jàll ci libération mhm. alors c'était une parenthèse il fallait qu'on en parle que suñu ay naataango suñu ay confrères ak consoeurs la loolu dal démb il fallait qu'on en parle merci euh, de, de, de donc bëgg article ak bëgg yenn bu mu la ko jaral Euh, donc c'est important Libération qui barre à mm. sans vie échouent sur les plages de Dakar. Euh, voilà mi ngi noonu loolu mooy li gën a fës ci yëglekaay bi la euh, di la Libération de ce matin mu jëm nekk ci wàllum Barça wala Barsak nee nañ gannaaw nag chavirement pirogue boo xam ni dafa jóge woon fi nga xam ne moo di baax ñi jëmali baax ñi jëm gàddaay. Mm-hmm. ñaar nag ci ñoo xam ne nag amuñu bakkan nag ñu jëlee leen fi nga xam ne moo di place bu jàmmalaay keneen koo xam ne itam fole nañ ko fi nga xam ne moo di deni deni géej nord voilà. voilà ci euh, jamono aussi boo xam ne ñi nga xam ne ñoo di marine euh, euh, sénégalaise bi ñoom jot nañu teg loxo ab pirogue boo xam ne lu toll koon ci ñeenti téeméer ci migrant nag ña nga woon ca gaal ga loolu nag mooy xibaar bi nga xam ne la libération daal na ko xëy fësal ci xëtam gu njëkk également wàllum politique ak nataalu ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko nee nañ délibéré de la cour de justice de la CEDEAO et de la cour suprême donc dogal googu ñi ngi koy xaarandi li nga xam ne moo jëm niki aljuma ñu ne une semaine définitive pour ndax nag euh, aussi lu jëm ci plateforme LACOS bi ñoom daal dinañu sàkku ñi nga xam ne euh, ñooy euh, jàppal tànk ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñu daal def ab mobilisation bu am solo bay sàkku nag ci yenn ci représentant léegi ñu daal di déposer ay lettres d'information jëmale ci bis boobu nga xam ne dañ koy xaar na la yemoo ko fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre voilà donc muy li gën a fës ci yëglekaay bi la libération daal di xëyee ñu mën ci gis aussi li nga xam ne moo di bu euh, yëglekaay boobu di Allô euh, Sénégal ñoom nag euh, Seydou Nourou lu mhm. jëm ci PDG ba ak juróom ci agent nag jamono ji ñi ngi ci loxo takk der yi gannaaw nag ba ñu bindalee ki nga xam ne moo di Mame Mbaye Niang mu daal di ñoom ñu daal di baalu ba fu mu ne nii ngi fi nga xam ni moo di ci loxo takk der yi mu di dik ñoom suñu naataango yooyu nga xam ni nag démb la daal di xewoon la libération daal na ci xëy dikkaat ci ni nga xam ne noonu la gën a yaatoo ci seen xët bu njëkk alors bu noppee rek ñu daal di ak keneen ku dul Mame Mbaye ñoom it Mame Mbaye mi nga xam ne lavé honneur rek léegi lay wër moom day xam naa ndoxu Sénégal dina jeex ndax xam naa ne moom foo ko fekk mu ngi lavé honneur waroon ngaa laal ñeneen yéen it allo Sénégal vraiment nag ah madame it sur cette question quand même ah que non xam nga boo demee daanaan excuse publique mooy yow ni yow jàpp nga ni tooñ nga quoi tey jii nii mënuloo si ay rumeur yu ñuy yëkkati ci réseaux sociaux ay réseaux sociaux. Mm-hmm. wala ay nit di ko wax hors ñoo xam ne ord du Sénégal lañ nekk te mu laal mbir yoo xam ne yow mënoo ci am preuve boo ci waxee. Mm-hmm. dama xamul pourquoi nga faire un sujet. cest à que la recherche de vue dina rey nit mm-hmm. dina damm nit di nga wax wax wax wax wax ba yow sax sawaay boo moytul sax yow di nga ñëw di jéem a caricaturer ki nga xam moo di yàlla c'est-à-dire que il faut il faut quand am na yoo xam ne ay waxu mbedd la. waxu mbedd waxu mbedd waxu waxu mbedd warta ñëw si plateau. dañu wax ne dëgg nag. léegi nag. xanaa wéyal leen njëkk mais quand même. nit day juum. Mhm. man mi di xibaar laa keneen ak keneen mën nañu wax si wax ba pare wax boo xam ne juum lañu. wax joo xam ne ku ñu xool xam ni kii la mu wax coobareem du woon lii. Mhm. mais je dis encore une fois gis nga people. Mhm. xam nga xam nga waxu gis nga people. waxoon naa ko fi de. people people moo moo moo genre boo xam ne sax dañ koy jàngale si lekkool naan journaliste people la. waaw <laughs> amul fu ñu koy jàngale amul benn genre genre bu people boo xam ne dañ la koy jàngal amul. mais toog wacc wacc wacc ci deru ni grand euh. tantagna naan man journaliste people la sa ñaawaay grand journaliste people en tout cas li leer mooy information boo ko amee vérifier ko ba pare balaa ngay publier wala nga ciy toog di débat mm. parce que ñi lay déglu dañoo bari dafa yow a yegg du man yeggu fa dama ne sax yow bu ñu ne woon kilifa bii mi ngi fréquenté jigéen bu dëkk fii mm-hmm. ndax am daa am nombol tànk yow soo yoon nekku ci sa c'est sa vie privée tant que ça porte pas atteinte à l'intérêt général mhm. cest à que waroo cee dugg mhm. mi ngi naan sangaraam te yow yow moom yow mii di ko jiiñ yaa naan sangara yow ngoon fi selu bon ngay tox maa la wax lii <laughs> c'est c'est c'est dommage en tout cas euh, nañu bàyyi xel bu bu baax a baax ci ci li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee euh, surtout euh, journalistes yi mais mooy li Thior wax keroog rek je pense que les normes de ces sites quand même bu ñu ko doon xoolaat di ko respecté peut-être yi yëpp duñ ci dugg mais nag léegi ku jóg rek def sa bopp journaliste des fois nga gis nit yor micro di poser question yoo xamante ne da nga naan kii man tellement dugg ci télé bi fekk wala ci sama téléphone bi fekk foofu dóor ko ba barey ko rek ngay bëgg tellement euh, voilà tu sais tu sais même pas ñi ils sont sortis d'où euh, xëy soo ngoon di wër taxawaalu ci ay kër nit pour def ay interview yoo xam ne amulul njëriñ euh, voilà at the end of the day ngeen nekk fi di baaluwaat ñu jàll ci beneen journal Sud hmm. Quotidien mi nga xamante ne moom tamit tey mu ngi xëyee li nga xamante ne mooy le fit hmm. à l'assaut du Macky le FUT à l'assaut du Macky euh, le FUT nag Seydou Nourou moom mooy alliance bu yees bi nga xam ne yenn ciy leader te fare ci kujje gi nag ñoo ko daal di taxawal toll nag ci euh, fanweer ak juróom euh, nee nañ nag li ñu bëgg ci alliance bi li moo di lu jëm ci wàllum processus électoral bi ñu daal di koy topp ba mu jeex képp koo xam ne nag candidat nga te war a bokk ci yile élection ñu bañ la cee dal di génne maanaam lu jëm ci wàllum transparence également ñoom dinañ ko topp ñoom ñi nga xam ne mooy la nouvelle alliance di le FUT voilà nee nañ nag dañuy taxaw ngi jàmmaloo nga xam ne nag moo di euh, njiital réew mi di président euh, Macky Sall jëm ci élection présidentielle yu ñu jàpp nag atum 2024 euh, ba tey oh. ci yëglekaay bi di Sud Quotidien ñu daal di gis ki nga xam ne moo di Mame Boye Diaw moom nag mu daal di sek ab waxtaan bu yaa jëmale ci wàllum immigration irrégulière lu jëm ci wàllum fermeture université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba ci aussi tabb gi nga xam ne njiitu réew bi moom Macky Sall daal na koy tabb Sénat bu yees bi maanaam équipe bu yees bi loolee lépp nag jëm ci ay xalaat yoo xam ne moom Mame Boye daal dina koy indi jagleel ko suñu ay confrère bi li euh, du le Sud Quotidien ñu daal koy def ci seen euh, xët bu njëkk aussi beneen interview moo di euh, Lamine Bara Gueye responsable APR bu Mbacké moom nag aussi daal dina ñëw ci candidature Amadou Ba gis-gis nag ba mu ci am mu ngi nag dans les colonnes du journal Sud Quotidien de ce matin Seydou Nourou bu baaxee rek ñu daal di dem xool beneen xët. ayca gannaaw Sud Quotidien ñu jàll ci beneen journal xool moom it lu mu daal di xëyee ce matin Seck mi nga xamante ne euh, tey dafa xëy euh, ci 35 euh, candidats qui s'unissent contre Macky Sall. ba mhm. léegi mu ci fit bi. ñu ngi ci alliance fit bi gis nga mu jëm rek kon ngir nag daal di gën a taxaw lu ñeel élection présidentielle atum 2024 nee na ñoom nag la ñuy sàkku moo di doon benn say gën a mën a taxaw lu jëm ci wàllum démocratie fii ci Sénégal waaye nag fit boobu ki nga xam ne moo di Karim Wade ak kon ku jëm ci Khalifa Ababacar Sall ñoom nag bokk bokkuñu ci euh, euh, kon nag euh, alliance boobee fanweer ak juróom yi ci bokk ñoom ñëpp ay candidat lañ ci élection présidentielle yi ñu jëm ci waa parti démocratique sénégalais aussi nag ak taxaw bu Dakar bu xalifa Sall nag ñoom dañ leen daal di génnee ci alliance bu yees bi ndax nag dañu jàpp ne seen doxalin àndut ak li nga xam ne moom mooy carte bi ñu daal di bëgg ba daal di taxawal li nga xam ne moo di seen alliance bu yees bi loolu nag mooy xët bu jëkk bu la tribune de ce matin après le Maroc et la Libye nee nañ la migration immigration irrégulière loolu nag mooy samp loolu mooy laaj boo xam ne ah, suñu naataango yi aussi daal nañ koo xëy ah, samp gannaaw nag ah, ndaw yi nga xam ne ñi ngay woy di ñàkk seen bakkan ci géej gi daal day ni ëlëm ba tax nag ñuy samp laaj ndax nag mbaadu Sénégal dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy gën a ñàkk seen doom ci li nga xam ne moo di géej gi ak kaddu yi nga xam ne ñenn ñu nekk nag ci wàllum secteur de la pêche daal dinañ koo xëy daal di jagleen ñi nga xam ne moo di suñu naataango la tribune nee nañ nag faw rek ñu daal amal ay assise nationale Seydou Nourou mhm. euh, ngir mën a xool ana yan pexe la ñuy teg ngir euh, li jëm ci wàllum immigration irrégulière bi nag ñu daal ko fi euh, mën a dakkal nee nañ nag ki lee di njiitu réew mi sax moom président Macky Sall dafa jot mu daal di amal ab deuil national gannaaw bi nga xam ne ñu bëri kon ci doom yi Sénégal ña ngay woy di ñàkk seen bakkan ci li nga xam ne moo di wàllum immigration irrégulière bi et également aussi ñu daal di gis seen xët bu njëkk lu jëm ci journalistes yi nga xam ni ñoom seen gaal ga dafa daal pollution en mer tey ci yëglekaay bi la ñu gis ki nga xam ne moo di Mouhamed Habib Aïdara secrétaire général euh, bu Sutelec euh, mi nga xam ne nag euh, mi ngi tontu ak il nee na ce contrat c'est un c'est du banditisme kon nag lu jëm ci contrat boobe nag jëm ci wàllum ak il daal doxewul njaaxaanaay ay kàddoom ñu mën ko seen ci dans les colonnes du journal La Tribune de ce matin. ayca gannaaw tribune ñu jàll ci beneen yéenekaay pour xool moom it lu mu xëyee yor-yor bien sûr une rogne et grogne dans les rangs des magistrats c'était la rencontre UMS avec le premier ministre Amadou Ba voilà mooy nag lu ñu euh, mën a seen ci euh, yor yor daal di koy euh, xëyee tey ji gannaaw bi nga xam ne ñoom ñenn ci kon fale ci justice bi ba ñu daal di daje woon ak ki nga xam ne moo di maître Aïssata Tall Sall ñoom nag waa union donc des magistrats du Sénégal kon daje woon nañ ak ki nga xam ne moo di Amadou Ba la ñu waxtaanee nag ana lan la xëy na nag suñuy naataango ko ay euh, laaj nag euh, ay tontu kon euh, lañ ci daal di indi ba tax nag ñu daal di koy fësal ci li nga xam ne nag moo di seen xët bu njëkk ni ki tey ci suba si aussi wàllum fit bi sànq ñi ngi ko doon wax jëm ci wàllum transparence des élections Cheikh Tidiane Dieye kaddu yi nga xam ne nag daal di ko yëkkati nee na nag empêcher l'exclusion illégale de Sonko et un hold-up électoral jëm rek kon ci objectif yi nga xam ne ñoom daal di nañ ko tëral ci seen alliance bu yees boobee nee nañ nag lu jëm kon ci dàq Ousmane Sonko te àndut seen euh, justice maanaam te teguñu ko ci yoon loole nag bokk na ci lu ñuy daal di xeex euh, ba ci itam euh, lu jëm kon ci wàllu processus électoral bi moom Cheikh Tidiane Dièye ay kàddoom nag ci biir journal bi di yor yor ñu daal di koy xëy fësal ni ki tey ci suba si accord MFDC ak li nga xam ne moo di état bu Sénégal ñoom nag ña ngay daal di sàkku li jëm rek ci yenn ci accord yi nga xam ne si woon nañ ko ak état bu Sénégal ñu daal di koy gaaw daal di koy ñoom waa bi nekkee ca Casamance ndax nee nañ nag boobu ba léegi gisuñu dara am ci coppite euh, ci waxtaan yi nga xam ne doxoon na seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di état bu Sénégal euh, bu noppee rek ñu daal di xoole beneen euh, yëglekaay Seydou Nourou aca gannaaw bien sûr yor yoo ñu dem seeti beneen yéenekaay bés bi le jour qui barre mm-hmm. à la une bien sûr victoire de Tafatine sur Eumeu donc scène de violence mais aussi front sur l'inclusivité et la transparence des élections à qui profite profite le front. le front voilà donc euh, laaj bi aussi bu ñu daal di samp nee naa leen lu toll ci fanweer ak juróom euh, ci euh, candidat déclaré nag ñoom ñooy nag ñoom ñoo daal di bokk ci alliance bi yees bi waaye dañuy daal di jàppal tànk li nga xam ne moo di candidature Ousmane Sonko parti démocratique sénégalais taxaw ak yenn ci personnalité yoo xam ne façon nañ nag ci pouvoir en place bi nag ñoom bokkuñu ci nag dañ leen na dàkk ci boobule alliance loolee mooy la une du journal bés bi le daal di ci xëy dikk ci nu mu gën a yaatoo euh, aussi ci euh, li nga xam ne moo jëm ci combat bi doxoon démb euh, diggante Tapha ak Eumeu ñoom nag voilà lañ ca wax nee nañ Tapha Tine rêve déjà du vainqueur Modou Lo ak Boy Niang maanaam ñoom ñaar ku ci daan ki nga xam ne nag moo di Tapha mi ngi am yéene ne mën na daal di sëgg bëreeg yow gannaaw ndam lu yaa li mu am démb diggante ki nga xam ne moom moo dox digganteem ak Eumeu Sène également kaddu Mame Boye Diaw mi nga xam ne moom aussi dafa bokk ci candidat yi nga xam ne ñoo na a dem ci élection présidentielle Euh, ni niki atum 2024 euh, moom Mame Boye Diaw euh, ci ay kàddoom nee na nag jamono ji mi ngi wax ay opposant yoo xam ne kenn mënu ko toog xalaat Mame Boye Diaw nag kàddu yooyee nag la daal di fësal ci li nga xam ne moo di journal bile di bés bi le jour. ay gannaaw bés bi le jour ñu wala jeex na ñu dem ci beneen journal ñu xool beneen. ayca ñu dem mhm. beneen euh, journal euh, xool bien sûr Walf Quotidien ambition mesurée bien sûr ça parle du président Macky envoyé spécial. du, pacte, de Paris. voilà la une de, du journal Walf Quotidien euh, de ce matin gannaaw bi nga xam ne moom Macky Sall ma nga woon ca Paris ak nag euh, kon tabb lies yees li nga xam ne moom Macron daal dina koy jox Macky Sall ci bu tekkee nombal tànkam ci réew mi jëm nag ci yooyu les ambitions yi nga xam ne moom président Macky Sall am na ko loolee nag euh, la daal di euh, suñu confrère Walf Quotidien euh, daal xëy fësal ci seen xët bu njëkk ni ma leen ko waxee sànq kàddu yi Mame Boye Diaw aussi daal di nañ ci ñëwaat ci li nga xam ne ba mu doon def jannoo ak way taskatu xabaar yi ci contentieux électoral bi ñoom aussi dikk nañ ci yooyu le kàddu yi nga xam ne Mame Boye Diaw daal di na ko yëkkati kàddu combat Eumeu Sène ak ki nga xam ne nag moo di Tapha Tine lu jëm nag ci combat ba nee nañ Tapha moom ki nga xam ne moo di Eumeu Sène jot laal waaye Tapha Tine moo daal mujj am am ndam euh, ci kawam suñu ay naataango Walf Quotidien euh, di dikk ci euh, ci nu mu gën a yaatoo ñu mu ci gis également ci nataal nataalu journal bi léegi kii di Abdoulaye Tine mi ne nag kon dina renégocier lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum contrat ñeel programme de campagne ay kaddu Abdoulaye Tine ci biir journal Walf Quotidien de ce matin Seydou Nourou Ba. ayca mu ngoog gannaaw ñu seeti deux minutes pour lire l'essentiel de El Hadj euh, Ben Mortar Diop. Mhm. qui nous diplomatie Ismaïla Madior qui renforce l'axe Dakar Riyad. lool Riyad loolu mooy li gën a fës euh, ci journal bi lee di deux minutes pour lire euh, l'essentiel nataalu nag ki nga xam ne moo di Ismaïla Madior fal suñu naataango yi nag moom lañu ñu daal di xëyee tey aussi carnage du peuple désespéré verbatim ki nga xam ne moo di Ben Mortar Diop daal di ñëw dikk bu baax a baax ci kon jàmmaarloo yi nga xam ne ma ngay woy diggante nga xam ne euh, euh, voilà donc waaw ci euh, ñàkk ñàkk espoir bi nga xam ne askan bu Sénégal kon ma ngay woy di ko daal di am boobu jàngat bu yaa bi nga xam ne benn Makhtar Diop moo ci daal di dikki aussi ñu mu daal di fësal xëtam bu njëkk li nga xam ni moo di nataalu Sénégal bu ñu jàpp ne ab modèle la ci biir Afrique jëmmale ci wàllum assainissement loolu nag bokk na ci li nga xam ne mooy xët bu njëkk bu deux minutes pour lire l'essentiel ñu daal di koy xëyee tey jii Seydou Nourou yéen waaw moo moo moo jara laaj. Sénégal gii waaw ba waaw baax na benn benn loolu da nu koy leeral de li nga bind nii foog mu leer. bon assainissement bàyyi lijjanti gi xam nga ñoom tamit mënoon lijjanti lépp Seydou ah, Nour. ko lijjanti ay trophée yi xaw ma yan trophée la ak fu mu jógee foog ñu ko réew bi assainissement fii waaw ah, d'accord. Hmm. ñu dem ci beneen journal gannaaw li l'essentiel. <laughs> waaw non après A bien sûr qui barre son euh, donc Coupe du Monde premier objectif assigné ambition mmh. de défendre notre titre de champion d'Afrique mhm. Aliou Cissé tranche euh, Aliou Cissé euh, voilà un Aliou tranchant mhm. loolu mooy la une du journal source A alors ba tey ci kaddu yooyu Aliou Cissé nag bokk na ci mbëbët yi nga xam ne tegoon nañ ko sur la table ne daal faw rek mu di koy atteindre nee na nag lu jëm invitation Sénégal mondial ak nag la li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique bi euh, kenn xaaru ko woon waaye moom bokk na ci objectif yi nga xam ne euh, sampoon na ba fu mu ne nii nag loolee kenn waxatu ko euh, également 9 a 10 équipes africaines yo xam ne mënoos nañu ko séntu ci li nga xam ni moo di mondial bi moom Aliou Cissé daal dina ci dikk ca na mu gën a yaatoo wàllum immigration irrégulière ak confidence yi nga xam ne nag ñenn ci ay rescapé jot nañ ko sekk ak ñi nga xam ne ñu di suñu ay ko oh. rawatina nag ci gaal gi nga xam ne moo daal di euh, teere woon foofee ca Mauritanie gannaaw euh, juróom ñetti fan boo xam ne euh, defoon nañu ko nag ci géej ga muy ay kaddu yu doy waar mbaa ay information nag yu yoo xam ne nag ay respect ay rescapé daal dinañu ko sekk ñi nga xam ne ñoo di suñu natango billet du journal source a ñu daal koy xëy fësal ci seen xët bu njëkk yeneen kaddu mooy yu Souleymane Jules Diop mi nga xam ne aussi dénk na ko ki nga xam ne moo fale ci mouvance présidentielle officiel bi di Amadou Ba euh, nee na moom daal euh, doxalinam euh, mi ngi tàmbale jur li nga xam ne moo di njaxare ci li nga xam ne moo di rang yu benn Bokk Yaakaar moom ay kaddu Souleymane Jules Diop aussi ñu mën ko gis dans les colonnes du journal Source A de ce matin Seydou Nourou bu baaxee rek ñu xooliwaat ba tey beneen yëglekaay. Souleymane Jules Diop le revenant. <laughs> waaw le revenant waaw. tey moom tey na ci yenn journaux yi de sama xel tey na ci <laughs> Euh, enquête. Mhm. bien sûr euh, avant de terminer bien sûr le reçu d'une peur bleue. du peur bleue euh, loolu nag mooy gaal gi nga xam ne kon jot na daal di dëpp te yeboon ay journalistes yoo xam ne dañ doon def excursion en mer sànq ñi ngi ko doon wax naam nag kenn ñàkku ci seen bakkan waaye nag bëri woon na lool ay jafe-jafe gannaaw ba yenn ci taskatu xabaar bëggoon nag amal liggéey ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum immigration irrégulière bi waaye nag lañ ci jëlee neexul ndax gaal ga nag dafa daal di këpp ñu bëri ci ñoom yaakaaroon nañ sax Seydou oh. uh, kon seen bakkan uh, fa doon uh, des comme ni ko Abdoulaye Mbow sànq jàngatee loolee lépp nag jëm ci jafe-jafe bi nga xam ne amoon nañ ko jëm seen wàllum condition de travail loolu nag mooy li a fës ci yëglekaay bi lay di l'enquête mu daal di koy xëy fësal ci xëtam bu njëkk présidentielle 2024 mise en place de fit les candidats opposants se donc ñooñee nga xam ne ñoo faree ci kujje gi te daal di taxaw lu jëm ci alliance bu yees boobee déjà aussi report présidentielle 2024 kaddu yi xam ne Souleymane Jules Diop euh, daal dina koy euh, fësal aussi ñu mun ko gis ci xët euh, yëglekaay bi lay di l'enquête de ce matin mi daal di dikk ci combat bi doxoon démb diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne nag moo di Tapha Tine Seydou Nourou alors Eumeu Sène Tapha Tine donc sport c'est que qu'on n'a pas eu les, les, journaux de sport de ce matin euh, d'ailleurs euh, combat boobu moo nekk ci à la une mhm. bu euh, li nga xamante ne mooy suñu lamb euh, donc et tout ça mais aussi bon un week-end avec des lions donc Jackson et Gana Gueye qui sont buteurs donc loolu tamit ak aussi la victoire donc du Sénégal contre linga nga xamante ne mooy Argentine le Sénégal terrasse l'Argentine et démarre bien bien sûr avec un doublé de son capitaine Amara Diouf. Merci beaucoup à Mariama en attendant de nous rejoindre ici euh, sur le plateau bien sûr pour euh,